mbokki taalibe yi mbokki réew mi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci ndigalal cheikh muhammadul muntaqa al xalifatul aam li tariqati al muridiya xafidahu llahu wa ataala baqaa'ah jaar ci mbooloo mi di daaira rawdu rayaaxiin muy mbooloo mi sëriñ bi dénk lépp lu jëm ci xam-xam lu jëm ci jàng ak jàngale ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam bi di leen jottali kàddu yi tàmbalee ko ci sant borom bi subhaanahu wa taala moom mi borom mbindeef yépp di julli ci ngën ji mbindeef sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yónni ngir mu mot li yu baax yu tedd yu rafet yi ginnaaw loolu mbokk yi diine jii di lislaam ci ak matam ak ay jubluwaayam yu leer dafa bokk ci jubluwaayu lislaam wattu ak njaboot wattu askan looloo tax borom bi subhanahu wa taala yoonal ak dencante ak jurante dencante nag buñ ko waxee comme ni ko boroom xel yépp xame mooy ci diggante góor ak jigéen ci la ab sëy di amee ci kaw ay ponk ak i charte ak ay mbir yoo xam ne bu gaaree mën a tere dencante am muy lu ñu xam te lépp rek la ca nekk mooy maslaxa jaam yi nit ñi mën a dund fii ci àdduna dund gu ànd ak texe bu ñu wuyjee seen boroom dund fa ak texe gu mat gu sax loolu tax yàlla subhanahu wa taala xaraamal zina njaaloo góor ak jigéen di ànd ci lu dul ab sëy ci lu dul milkul yamin borom bi subhanahu wa xaramal xaraamal muy góor ak góor di ànd ak lépp lu xeetoog loolu yàlla boole yooyu ci ñaawteef yi gën a sibu gën a bon moo tax képp koo xam ne nit ku nite la xam na ne zina rawatina liwaat lu wuuteeg bindin bi borom bi subhaanahu wa bind diine la lu wuuteeg sharia islaamiya la bal mbooleem diine yi dañu koo sib dañu koo ñaawlu dañu koo tere ndax dadul jëfi doomu aadama du jikko doomu aadama li wax te buñ ko waxee mooy ak ngóor jigéen di ñaawte foo xam ne li ëpp ci boroom xam-xam yi nee nañ moo gën a bon sax zina te njaaloo ku ne xam na ne alquran da koo tere ci anam gu tar ne bu leen ko jege lépp lu cay yóbbee wattandiku leen ko sori leen ko alquran nettali ay yoon nitu sayiduna luut alayhi salaam muy nit ñooñu nga xam ne ñoo njëkk jëf ñaawteef yi ci kaw suuf yàlla xalak leen xeetu xalkane wu mësta xalak kenn ci kaw suuf borom baa ngi wax ci suratu shuara atatuuna dhukraana min alaalamin wa tadharuuna maa xalaqa lakum rabbukum min azwaajikum balantum qawmun aaduun yàlla di wax ak nitul sayiduna lóot waaw yéen ndax dangeen ngeen di jotee da ngeen di sëyi ay góor ak i góor bàyyi soxna yi nga xam ne moom la leen borom bi bindal yéen day nit ñu jalgati ngeen ñu wàcc aw yoon ngeen ñu sori ak njub ngeen ca suuratul Araaf borom baa ngi melal ñaawteef woowu ak nit ñi ko njëkk a def di wax ne def nañu kenn mësta def wa luutan id qaala li qawmihi ataatuna alfaxishata ma sabaqakum biha min ahadin min alaalamin jàngaleel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaleel fàttalil tuddal keroog ba luut di wax ak aw nitam naan leen waaw yéen dangeen di def ñaawteef woo xam ne benn mbindeef mësul leen cee ba tey borom bi subhaanahu wa taala yedd nitu luut ñooñu yedd gu tar ci aaya yu wuute ci alquran bokk ca mu ne leen ataatuuna rijaala shahwatan min duni nisaa balantum qawmu musrifuun ndax da ngeen di jotee ay góor ki góor bàyyi soxna yi yéen day aw nit ñu ëppal ngeen yàlla wax ñu ci alquranul karim naka la mbugalee nit ñooñu jëfoon ñaawteef woowu wax gim ñu ko wax ci alquran ngir jàjji ngir watt ndiku loo borom bi xamal ñu ne keroog ba mbugalam di wàcc ci ñoom dëkk ba la wëlbati ci seen kaw la féete woon kaw lépp féete biir la woon ci biir suuf féete kaw yemut ci yàlla taral tawal leen ay xeer yu bàyyee ko ca safara waaye borom bi ne wa maa hiya min bi baid mbugal moomu ak xalkande googu mu xalak nit ñooñu doonut lu sori benn tooñkat loolu day wat ndikuloo képp kuy jàng ak kuy dégg lii nga xam ne ñaawteefu réegi luy sabab mbugalum yàllaa ngi luy xalak aw nit a ngi aaya yi bari na ci alquranul karim lépp di tegtale ñaawteefu loolu ñuy tuddee ak ngóor jigéen noonu la mel ci sunnat yonante bi alayhi wa dañuy fekk ci ay xadisam ci sunanu tirmidi sallallahu alayhi wa di wax ne inna axwafa ma axaafu ala ummati amalu qawmi lut li ma ragal ci sama xeet mooy ñu jëf jëfu nitu lóot kon gis nga jëf ju ñaaw la ju bon yonent bi tiitaloon aw xeetam ci ñu jëf-jëf jooju xalkade gu mel ni ga wàccoon ca nit ñooña wàcc ci ñoom ci beneen xadis ci musnadul imam ahmad sallallahu alayhi wa di rëbbu laana allahu man amila amala qawmi luut yàlla na yàlla rëbbu képp ku jëf jëfu nitu yonent yàlla luutu alayhi salaam wax ko ñetti yoon kon ñaawteef la ci alquranul karim ci yàq yu leer nañ ñi ñaawteef la ci sunnat yonante bi sallallahu alayhi wa muy ay yàq yu leer nañ ñi ñaawteef la ci saxaaba yonante bi ridwanullahi alayhim taarix nettali nañu ba amee ñu jëf lu mel noonu ci jamonoy saxaaba yi dañ leen a teg mbugal yu metti daan yu diis yu méngoog ñaawte foofu ñaawteef la ci mbooleem borom xam-xami lislaam yi mbooleem jàngalekat yi mbooleem nit ñu baax ñi sëriñ tuuba radiallahu anhu ci téereem bii di munawwiru sudur ubbi na fa bunt boo xam ne lam fay jàngale mooy alkabair bakkaar yu mag yi bakkaar yi xalak doomu aadama lim ca ñaar fukk boole ca zinan bi furujihim faqat qussa fa man maala ilayhima saqat sëriñ bi day lim kabaayir yi ak kabira bu ne ban cër moo koy jëf ci juróom-ñaari cëri doomu aadama ba àgg ci awra ci fargu mu ne zina njaalo liwaat jëf jëfu nitu lóot muy ak ngóor jigéen ñaari bàkkaar yu mag ngi yoo xam ne pëyum doomu aadamaa koy def képp ku jegg jëm ci ñaar yooyu kooku rot na daanu na àdduna ak àllaaxira looloo tax ci ndigalul sëriñ bi jaar ci mbooloo mii di rawdu rayaaxiin jëm ci mboole mi jullit jëm ci askanu réew mi yépp ñi ngi ñaawlu ñaawlu gu tar bépp jéegu boo xam ne nit a ngi koy jéegu ngir tasaare mbon bi lépp lu nit di wax ci réew mi walla mu di ko def jéegu bu nit di dox ci réew mi ngir daganal ngir yaatal ngir tasaare ñaawte foofu loolu ñu ngi koy ñaawlu ba fa ñaawlu mën a yem ñi ngi laabire bépp jullit di laabire képp ko am xel rawatina ku bëgg jàmmi réew mi jàmmi askan wi na sori kem kàttanam ñaawteef woowu soril ko njaboot gi ko borom bi subhanahu wa dénk yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci njàngaleem mu xam le ne yéen ñëpp ay sàmm ngeen te bési ngi ñëw kenn ku nekk boroom bi dana la laaj lim la doon sàmmuloo naka nga ko sàmmee kon borom kër bu nekk borom dëkk bu nekk kilifa gu nekk ak ñëm yilif sëriñ bu nekk ak ay taalibeem waaye borom réew mi ak waa réew mi ak képp ku ñu dénk ndomb tànk ci réew mi ñi ngi laabire ñépp nañu sori ñaawteef wii te xam ne jëf ju bon la képp kuy sol sa dàll di xeex ñaawteef wii di dox ngir yàlla ngir yàlla soril ñaawteef yi jëlee ko ci réew mi ñi ngi lay ànd ak yow ci jéego yooyu ngay dox di ànd ak yow ci xeex boobu ak lu mën a laaj waaye képp ku nekk ci safaan bëgg dëgëral ñaawteef yi bëgg a aar ñi koy def ñi ngi naqarlu di ñaaw loolu di ñaawlu loolu tey jàmmaarloo ak loolu ñi ngi sàkku ci mbooleem doomi réew mi kenn ku nekk ak fa kàttanam tollu na ñépp maase di góor góorlu ci lépp luy tasaare ak mbaax luy tasaare ak yiw luy yaatal ngëneel ci diggante nit ñi luy jëmbat jikko yu baax yu tedd yu màgg yi rawat na ci ndaw ñi kon ñi ngi soññ ñépp ci ñu góorgóorlu ci jëmbat jikko yu baax yu tedd yi yar ndaw ñi ci asiraatul mustaqim mu yoon wu jub bi nga xam ne moom la borom bi subhanahu wa gërëm ay jaamam jaar ci loolu nag ci jumtukaay yépp lañ koy defee la ca jiitu mooy di jëf yar bi gën a gaaw ñu war koo yar ndaw mooy niñ bëgg mu mel ñu jéem koo mel ndax bu xoolee gis lu mu roy bu dégloo dégg lu mu roy bu xamee xam lu mu roy naka noonu ci wàllu yar yarukaay yi jàngukaay yi mboolem xeetu yarukaay ak jàngukaay ci réew mi nañu bokk gën a góorlu ci yar xale yi ci ak njub yar leen ci ak mbaax yar leen ci jikko yu tedd sibloo leen soriloo loo leen ñaawteef yu mel nii ak yu ñoom jumtukaay yi gën a jeexital ci ndaw mi muy jumtukaay yi jàllale ay xabaar ak di ko tasaare ñu gën a góorgóorlu ci di tasaare lépp loo xam ne mbaax la yiw la ngëneel la di ko jëmbat ci ndaw ñi bañ mën a màgg ci jikko yu baax yu rafet yi sori lépp loo xam ne ñaawteef la ñi yor wàllu àtte ci réew mi ak ñiy wate dogal yi àttekat yi di teg ñi ci aw yoon muy ndawi askan wi ñi ñu fal ci péncum ndawi réew mi at yu bari di jaar ci seen loxo ñi ngi leen di fàttali nañu góor góorlu te ci yoonal atte yoo xam ne dana jëmbat ak mbaax dana jëmbat ngëneel dana jëmbat jikko yu baax yu màgg ci ndawi réew mi ak ci askan wi yépp te wattandiku lépp loo xam ne day indi sabaan ci doomu réew mi gannaaw loolu ñu ngi jeexalee sunu kàddu di ñaan borom bi subhanahu wa mu xéewal ñu saxal ñu ci ak njub may ñu hidaaya ak istiqaama yàlla nañu ko yàlla defal defal ko waa réew mi yépp defal ko bépp jullit fu réewu jullit nekk ci àdduna fu jullit nekk ci àdduna yàlla yàlla defal ñépp hidaaya defal leen istiqaama defal leen sixa defal leen aafiya yàlla wattu sunu réew mi ak réewi jullit yi ci lépp loo xam ne aw xay la lépp loo xam ne musiba la moo xam lu feeñ la wala lu nëbb la kàddu yi lañ doon jotli ci ndigalal a cheikh Mouhamadul Muntaxa xafidahu llahu wa raa jëm ci képp koo xam ne ab jullit la rawat na koo xam ne ab taalibe la waaye jëm ci mboolem doomi réew mi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.